summikoo mooy ci sañ a fase fasewul cig neen ñàkkut alal mbaa lu wecc alal mbaa daal xeetu njariñ boo xam ne moo ko taxa fase waaye fasewul rek noonu cig neen mu ne nag àtte ba moo di ak dagan maanaam ñu seq loola buñ ci amee déggu rek summikoo ga dagan na léegi mu ne aw bi lafzi itam mën naa nekk mooy moom miy fase bu tuddee baatu summikoo rek doonte waxutoon ndox ko jenn alal joxuñu ko jenn alal dañ koy àtte àtte pasem summikoo nga xam ne ak fay li du ca mën a topp waaye nag tàggoog fayu alal moom seebo rek jullit bi di ko moytu bu baax a baax ndax mën na caa gàddu àq ndax ku ñu may soxna te jotewut ak moom dara dara itam bu jekkee jekki fase ko war na koo jox genn wàllu can nga bu demee nag ba wéet ak moom jotee ak moom nag war koo jox léppi can nga muy alali sëy ja nga xam ne kon gannaaw ba bu amee lu ko naqari di jekki-jekki ne bala ma ko bàyyi dañ may fay li ma ci defoon lay tax rek mu sañ a fayu alal mooy moom tooñul jigéen ja def ko dara jigéen ji ci boppam rek moo jekki-jekki bëggatut a ànd ak moom waaye léegi xas na ko takk ba wéet ak moom moom jotee ak moom lam defoon ci moom muy alali sëy jigéen daa ko moom waaye nag bu fekkee ne moom bëgg naa téye jigéen ja jigéen ja ak i mbokkam ñoo doog rek ki faaw mu tàggoog moom te mënu ci dara mën na ne kon nañ ma fay alal ma door koo bàyyi alal ja ñuy joxe ba jëkkër ji bàyyi soxna sa soxna sa joxe ko ak keneen joxe ko rek ku ko sañ joxe benn la baayam mbaa yaayam mbaa nijaayam mbaa ab jaamu sax ku ci fay alal ji rek mu daal di baax summi ko mën naa am rek ci jëkkër ja tudd baatu summi ko ca ba muy fase bu ne woon soxnaam summikoon te na maa yow te waxut ak moom jenn alal xam ne kon da koo fase rek ba noppi tudd ci baatu summikoo di tee ñu jàppe ko ak summikoo loolu mooy bu ko mën a fay li idda day jeex rek bu ko bëggee takkaat te njuboo ma takkaat ko ne faa yi bàyyi soxnaam ci kaw ñu fay ko alal nag daal ne doon summikoo bu ne woon fase naa ko fase fay li itam day xasuñ ko fay alal rek ak summikoo la dañ koy jàpp menn fase moo xam ne ak fay li mënu caa am bu idda ji jeexee daal te bëgg àndaat ñu may may gu yees rek waaye buñ ko fayul alal mu ne fase naa ko pasem payli tuddaale ca ak fayli itam du tax mu doon ko dañ ne woon kay joxe alal ja ndax sëy bi jeex kum doon rek baax na waaye dañ ci sart nag nee na mu saña dafa ko dindi ci alalam képp koo xam ne suñu laa dafa ko dindi ci sa alal doo sañ a fay alali sëy benn yoon ku mel ne gone wala ab jaam wala koo xam ne mag la waaye duñ ko bàyyi mu yore alalam ndax ñooñu ku ci fayen alal ci ak summikoo dañuy bàyyi ba kilifaam ñëw su ko wéyelee mu wéy bu ko dindee mu deñ mu ne nag jëkkër ji bu fexe woon ba ka ko fay alal mel ne kenn ci ñooñu nga xam ne suñu te jekki-jekki génne alal bu kilifaam ñëwee ne dañuy dindi li ñu defoon jigéen ja dal nay moom boppam mooy sëy ba dañ na te faaw mu war a delloo alal joojee li may nag daa waxoon ci jëfalante ba ak ka muy waxal ne ko li muy waxante yow ci alal day bu jotee bu wér ba sa jaan wàcc kon may naa la sa baat mais kon summikoo na maa yow ndegam noonu la ko sarte woon moom ne ko ne ko alal ji ma lay wax su ma demee ba jot ci nga xam ne kon sa jaan wàcc na sëy bi jeex na yoratu sa buum ndegam noonu la ko sarte moom tam jëfalanteel doon koo xam ne sañu te soppandiku ci àll tam su jotul te loolee mu waxoon rek ba tey buumu sëy gaa nga fa kenn du ko wax ne ko ñàkk nga su soxna waxoon ne la kilifa nga sañ a far si jigéen ja ci wétal ko jëkkate du sañ a bañ ak ka nga xam ne sañu ko ka sañ a forcé nag jigéen ja muy dif ne ko tey nga am jëkkër ba tey mën na koo forcé ci fayal ko alal génn ko ca sëy ba mel ne alal yu sëy ja nga xam ne moom lañ joxoon jigéen ja bàyyam ba ko sañoon a forcé mën naa jël lépp alal ja dellu jëkkër ja ndax sëy ba jeex kilifa goo xam ne nag moom sañu te forcé moom du sañ a jekki-jekki summikool jigéen ja muy lif ci waxtaanee moom daal bañ am ci déggoo baax na waaye du sañ a jekki-jekki du sañ a jekki-jekki ne ko alal ji ñu defoon ji war ma koy delloo sëy bi jeex bu fàttee ne as safihatu wala ñu firee aji desee di ju jigéen te jublu wuñ ci gàtt xel ñàkk mën a yor alal rek lañ ci juulu dañu ne ku mel ne bàyyi nga xam ne sañ naa forcé ci jamono yom sañ a forcé moom mën naa forcé kookee mu yilif ne ko daay fay alal ji ñu defoon ci yow sëy bi jeex mu ne nag ki nga xam ne moom mag la jeeg la ñàkk mën a yor alal rek moo ko te yéeg boppam ndax bàyyi mën naa doogu ci ne ko damay delloo alal ji ñu defoon ci yow sëy bi jeex am faaw mu laaj ko ci ndigal ba mu nangu waaye suñ ci jékki-jékki def ko nekkam sañ a forcé loolu moo am ak wóote waaye nee nañu lu gën a wóor mooy gisu ko ci sañ a forcé al arjahu annahu laa yajuusu illa biridaha bu nangoo rek ñu defal ko loola di summikoo gi bu nanguwut ñu bàyyi mu ne nag la ñuy fay jëkkër ji bam bàyyi soxna sa may ko baatam mën naa doon alal joo xam ne wóorul boo xam ne na ci jotam déet mel ne lu ëmb ci biirub yaayam ñu koy wax mbéemoor nga xam ne juddoogut ñu ne ko noonu lañ lay jox te nga bàyyi jigéen ji mel ne ñu fekk fasu ëmb mbaa aw nag ñu ne ko loo mu ëmb moom lañ lay fayee ci nga may ko baatam mbaa jamono jaam xëyee jaam ba daw xamuñu dina feeñ réet ñu ne ko mooy alal suñu koo gi ndegam jëkkër ji sañoon naa jëkki jekki fase soxnaam te kenn du ko ca fay jenn alal kon bu ko neexee ñu jubóog moom ci fay ko alal joo xam ne wóor ba xam ne na ca jotam déet du ca wàññi dara mbaa ñu tudd loo xam ne waxuñu lu muy mel mel na ñu ne ko dañ lay jox aw nag te nga may ko baatam mbaa fas mbaa oto waaye waxuñu nag nawa nu muy mel mbaa fasu nu muy mel mbaa oto ba oto lan lay doon bu fekkee dañoo waxoon rek aw nag mbaaw fas ràññaluñu woon kon dañuy seet lu digg doomu bu dee nag ñu seet naw lu digg doomu duñu seet nag wa gën a yemaay duñu seet nag wa gën a baax bu doon oto it ñu seet oto bu digg doomu bañ a seet oto ba gën a yemaay mbaa oto ba gën a baax ba tey jëkkër ji bu fekkee soxnaam daa toll ci ak diggante mooy ëmb man na ko ne li ñu may fay alal si mooy su ma la fasee maa la waroon dundal ci bi nga tolloo ci ëmb waaye yaay dundal sa bopp du ma la dundal buñ jubee ci noonu baax na xam ne kon la mu ko waroon dundalee moom la ko jigéen ji wàcce mu daal doon li mu ko fay ci alal ba mu may ko baatam ba tey bu amee moom doom mën na ko ne naa la naa la may baat te doom ji nga xam ne dama ko am ak yow te war koo dundal yow nga féetewoo dund ba yaa koy dundal wala jëkkër ji jubóog soxnaam ci bis bu amee doom nàmpal ga moo koy warlu moom soxnaam soosu te mu may ko baatam wala mën naa jàll itam bu fere bañ teg ca nangami at lépp yaa koy dundal muy li nga may fay ngir ma may la sa baat nga xam ne kon mu ngi toll ci ak diggante moom jigéen ji jëkkëram jubóog moom nag ci bis bu amee doom la ca tàmbalee jëm ca kanam moo xam jur nàmp ga la mbaa la ca topp ci gannaaw nàmp ga ñu sàkk ko dat bu leer mu ne ko dund gone gi ak la ci war yow lay war te ma may la sa baat bu jëkkër jubóog soxna sa ci su amee doom diirub nàmpal ga mbaa ñu teg ca nangam ci dat mooy dundal gone ga du tax nag toll gi mu toll diggante dund ba wàcc ko moom jëkkër ji maanaam tey soxnaam bu toll woon ab diggante bu ko fasee itam xam nga moo ko war a dundal léegi nag bu jubóo woon ak moom ci bu demee ba am doom diirub nàmpal gaag la ci topp ba def sàngam te tax nag dund dama ko waroon dundal ci diirub ëmb bi daal di koy wàcc moom jëkkër ji ba tey bu fekkoon ne daa jubóo woon ak moom ci soxna see dundal boppam diirub ëmb bi loola du joteeg gannaaw bu amee doom nag diirub nàmpal ga jëm ci kanam jëkkër ji moo war a fay dund ba day wane ne ñu jubóo ci ñu fay ko diirub mi ngi toll ci ëmb rek yem ca bu ko wàccee moom jëkkër ji gannaaw bu ëmb ba jeexee ba mu am doom la mu war a dundale gone ga jëm ci kanam ba tey bu juboo nag moom ci gannaaw bu amee doom diirub nàmpal gaag la ca topp ba def sàngam jigéen jee ko warlu du tax jamono tolloo diggante dund ba daal di koy wàcc moom jëkkër ji maanaam yaar la yoo xam ne daal juboo moom ca lee du tax la ca des dugg ca juboo ga daal di koy wàcc bu juboo moom ca lee te boolewul ca lee lam juboo moom rek moo koy wàcc la ca des moom du ko wàcc booy jàng nag muxtasar moom daa waxoon ne bu jubóog moom rekk ci bu amee doom mooy dundal doom de kon góor gi dundub ëmb ba dal na koy wàcc waaye teewul nag di borom téere bi wax te muy wax ibnul qasim moom la ñu sukkandikoo mu ne sax mën nañoo jubóo ci bu amee doom dirub doom jàngay nàmp nàmp gaag lépp moom lay war moom jigéen ji boole ca di ko dundalaale moom jëkkër ji mbaa yaayi jëkkër ji mbaa keneen koo xam ne rek am nañ sa déggoo nit ki mu ne ko sama jarbaat bee ba tey yaa koy dundalaale te ma may la sa baat ci amik déggoo rek baax na bu jigéen jubóog jëkkëram ci mu may ko baatam te bu amee doom diirub nàmp ga moo koy yore dara du ko ci war a moom jëkkër ji boo jigéen ji amee doom nag farfaatu doom ja des fa mbaa amutum soow mbaa mu jur nag sax lépp benn doom nit ci ñaar koy dutee nañ koo xamte woon rek moom jigéen ja loola moom la war nga xam ne bu fekkee dafa faatu moom dañuy seet lam bàyyi ñu génne ca lee ko war nga génne ci miraas mu bala ñoo miraas ndax daa bokk ci bor yi bu dee loolu amatul soow te nampal ga ak gutit ma war a seet mu àggalee nampal ga ba mu amee doom muy ay seex it ba tey rek moo mu amoon doom muy kenn ñooy moo nañ ko waxee woon rek noonu la ko waree su jëkkër jubóog soxnaam ci mooy dundal gone ga diir sàngam ba diir sàngam far jigéen ja ñàkk ba mëntu dundal gone ga dañuy wax kon bàyyi bi ne ko gone gi mënti ñàkk dund kon yow dundal ko diir boobu te nag muy bor ba la jigéen ji ameel bu amee rek fay la bu jëkkër jubóog soxnaam si mu dundal gone gi diir sàngam te may ko baatam mbaa yaayam mbaa jar baatam mu di ko dundal diir sàngam te may ko baatam far nag kookee mu doon war a dundal faatu ki bu dee doom jaa mu faatu mbaa bu dee yaayu jëkkër ji mbaa jërbaat jëkkër ji kookee faatu ko it dañuy seet la des ca diir ba nga xam ne waroon na ko koo dundal loolu la ñuy seet la des ca diir ba lu mu ci war a fay rek moom jigéen ji mu fay ko lu may na dañoo aadaaloon foofa ku juboot jëkkëram ci loolu te war a dundal bu faatoo rek foofu la yem kenn du la topp la desoon ca diir ba fekkee loolu day aada foofu mbaa dañ ko sartante woon kon ñu topp aada ja mbaa sart ba su boobaa du ca fayaat dara dagan na jëkkër ji jóge soxnaam ci ne ko mën naa laa may sa baat te nga bàyyil ma fi njaboot gi séq moo xam kenn la moo xam ñaar la mu ne ko daal mën naa laa may sa baat ci kaw xam naa ni yaa war a yore doom ji nu séq waaye dama ko fi bàyyil nag muy alali sumikoo gi nga xam ne daal bàyyi gi nga bàyyi gone yi moom mooy tax ma may la sa baat loolu ndaa mel ni moom siiw na fii sunu barab yii nga gis ko wax naa su ma mënee bàyyi gone yi ma may ko baatam xam day sas daal moom buy demit di yóbbu doom ji ñu séq loolu nag mu ne dagan na kon ku bëgg a tàggoog soxnaam bu ñu waxtaanee ba juboo mën na ko ne da nga fi bàyyi doom ji ma am ak yow mbaa bu dee lu ëpp kenn te ma may la sa baat nga xam ne kon yooyu jamono yorub gone ya ci loxol seen bàyyi lay nekk mënees naa boole summikoo ak jaay maanaam jigéen ji da jox jëkkëram alal joo xam ne bu ko jëkkër ji jëlee da koy joxaat nangam ci xaalis mel ni jabar ji jox jëkkëram ab oto jëkkëram jox ko juróom fukki junni may ko baatam boole ci nga xam ne kon oto bi lenn la ak summikoo la maanaam mooy li jigéen ji fay ba ñu may ko baatam la ca des nag ak jaay la mooy juróom fukki junni yi ko jëkkëram jox su nee ko da nga may fay alal ma may la sa baat ba juboo ci lu tollu nangam waaye nag ñu takk ko ci baat boo xam ne kenn xamu ko mel ne ñu takk ko ci bàyyam ba tukki bitim réew bu ñibbisee rek la koy joxe mu ne kon dañuy wax ci loolu xamut jàpp ne daal lim bi ñu wax dañ koy jox jëkkër ji fa saasa dañuy jàpp ne lu mu koy jox la fi saasa du nekk lu jëm ab bu ko defee nag mu daal di moom boppam mooy may nañ ko baatam moom soxna si bu jigéen joxee jëkkëram alal summi ko goo xam ne foo la maanaam bu dee xaalis bu xaalis bi sañee jaayee ko jëndantee wala bu dee leneen tam piriwut kon bu neexee jëkkër ja mu delloo ko ko mu war koo joxaat nag la baax la pire lu may nag soxna si da ko waxoon ne ko li ma lay jox boo nangoo ma jox la ko muy sunu summi ko waaye nag gannaaw bi lu yàgg-yàgg doo ma ko delloo mu ci amee déggoo moom ci noonu kon lu yàgg-yàgg du ko ko delloo te soxna si daal nay moom boppam lañ juboo ci soxna si jox ko jëkkëram ci mu may ko baatam bu dee jëmm ju ràññi ko joo xam ne bu lu ñuy natt mbaa pese mbaa wàññi dafa mel ne aw nag mbaa oto mbaa jëmm joo xam ne daal moom ju ràññi ko la ba mu ko joxee ba noppi nag am ko si jàpp ne maa ko moom bañ demee ci yoon yoon ne ko wax nga dëgg yaa ko moom mu ne kon dañuy seet loolee luy xaymaam rek soxna si jox ko jëkkëram joojee mu ne bu deew nag te am na ku ne moo ko moom ba yoon ne ko yaa ko moom kon dañu seet xaymay nawa rek soxna si fay ko jëkkër ja bu doonoon nag lu ñuy peese mbaa lu ñuy natt mbaa lu ñuy wàññi moom da koy daal di joxaat rek lu toll noonu mu jeex bu fekkoon ne jëkkër ji alal ji ko soxna siy fay ngir may ko baatam xam na na mu demee waru ci woon a dugg ba noppi nag mu dugg ca bu ci remel nii xewee day ñàkk rek te soxna si moom moom na boppam ba noppi ba tey la soxna sa fay jëkkër ja ngir may ko baatam bu dee lu yoon araamal nga xam ne jullit mënu koo moom ni ki sàngara mbaa mbaam xuux soxna si moom daal lay moom boppam ba noppi nag sàngara soosee yoon da koy tuur bu dammati sax ndab ya defoon sàngara sa ndaga buñ ko raxasee mu set ndab ya moom dee su ko dammate dee su ko yàq waaye sàngara sa la ñuy tuur bu doon mbaam xuux am nañu ne dañ koy rey am nañu ne dañ koy bàyyi mu dem bu ko fay woon nag loo xam nañ ko nangoo ci jaambur ci doole mbaa lu ñu sàcc te jëkkër ji xamoon na ko teewul mu dugg ca kenn ko joxaat dara moom jëkkër ji te soxna si moom daal na moom boppam bu jëkkër ji ameeloon soxnaam bor boo xam ne waxtu fay wa jot na ñu juboo ci jëkkër ji dañ ko koo fay léegi ba dat sàngam ca kanam te may ko baatam loolu dañ koy aaye day araam ndax dañuy jàpp ne loo war a fay fi saasa rek bu la muñalee ba ca kanam day mel ne lu ñu la lebal te kon lañ daan aaye leble bu jural ka leble njariñ da ci am ndax soxna si kon day mel ne moo lebal jëkkër ji te lebal gi amal na ko njariñ ndax ci lañ ko maye baatam kon salafun jara nafxan lay doon safaan ba it mooy jëkkër ji amee loon ko bor boo xam ne fay ga jotugut jëkkër ji ne ko damaa bëgg nga nangul ma ma fay la ko léegi saajaan wàcc te ma may la sabaat ba tey loolu bu dee bor boo xam ne suñu su ko fay jiitati waxtu wa jotut léegi ma amee loon ko marchandise boo xam ne waxtu fay wa jotugut te ñu ko amee loon ci jaayee ko jëndante loolu kenn suñu ko fay te waxtu wa jotut lu mel noonu nag buñ juboo ci mu fay ko ko fi saasa te may ko baatam du baax ndax buñ delloo ci wàllu njaay day tolloog lañ da wax naa xutta fa addamaana wa asidaka mbaa wa asiduka maanaam li ma la ameel wàccee ma ko mu wàcc ma mooy nga nangu ko léegi léegi te ma yokkal la soxna si moom bu nangulee jëkkër ji loolu ci mu fay ko fi saasay saasa wàcc na jëkkër ja lam gàddu woon ci loosa mu noppalu waaye nag loolu day na jëkkër ji yokkal na ko li mu ko yokkal mooy may gi mu ko may baatam bu jëkkër ji waxoon soxna sa ne ko buñ ci juboo bu ma la fasee xam naa ne diirub idda ji da ngaa war a toog kër gi nga xam ne fi nga nekkoon buñ ci juboo nag ma may la sa baat te bu ma lay fase rek bu ma lay may sa baat nga daal di génn dem yaatal ma loolu bu soxna si nangu woon ba tey du ko tax a baax dañuy jàpp ne am na lu mu bëgg may na ko baatam te nag du tee mu toog ci kër ga ba idda ji jeex ndax loolu day àq bi yàlla diisal laa tuxrijoohunna min buyutihinna wala yaxrujna bu leen fasee seen soxna bu leen ko génne fa mu nekkoon bu leen ko génne dëkkuwaay ba mu nekkoon te idda ji jeexut moom it bu jékki-jékki génn loolu daa wuuteeg aaday suñu barab yi moom jigéen bu ko jëkkëram bàyyi rek moom ci boppam mooy daal dogu ci gën dem cay mbokkam waaye yoon moom dafa diisal lool loolu wax ne ku jëkkëram fase diirub idda ji jeex daa war a toog ci dëkkuwaay boobee iddaw ba idda ji jeex moo tax mu wax fii ne bu jëkkër ji waxoon soxnaam ne ko mën naa laa may sa baat ci kaw su ma la koy may nga daal di génn rek doo fi toog di fi iddawoo koy soxna sa am na lu mu bëgg may nañ ko baatam waaye nag du sañ a génn foofee te idda ji jeexut ndax loolu ak yàlla boo baa nag te jigéen ja facc na maanaam jigéen ja moom na boppam am na la bëggoon boo baa nag daa dellu ci mboolee masala yu weesu nga xam ne la jëkkër ja juboo nag jabar ja ci mu jox ko ko mbaamu defal ko ko mu di ab summi ko sottiwut nga xam ne kon jëkkër ja amut la ñu waxante woon waaye du tee rek soxna si moom la bëggoon am na ko mooy fase nañ ko fase goo xam ne jëkkëram du ko ca saña fayli bu idda ji jeexee nag dañ bëgg a àndaat ci sëy rek ñu àndaat ñu fas sëy seen diggante fas bu yees bu jëkkër ji fase woon soxnaam fase moo xam ne teewul mu sañ koo fayli jëkki mu fase ko menn pase rek moo xam ne kenn fayu ko ci alal soxna si ne ko naa la jox nangam ci alal te nga dogu ci ne fayli moom du ab mukk mooy doomu fayli mukk mukk bu jëkkër ji nangoo rek day mel ne fasewaat na ko meneen fase moo xam ne ak summikoo la du ko sañ a fayli mukk mukk buñ toll woon ci jamono yu naqaree naqari xiif metti lool ak góor dem làqu nag jaay soxnaam ñu fay ko ci njëkk wala ak góor làqu dem ba ci barab boo xam ne xamuñu ko fa mu waxtaan fa ak kenn ba may ko jëmmi soxnaam mel ne ko kaay jëkkëram léegi soxna si boppam la wax ak kenn ba may ko ko jabar lu mel nii nga xam ne góor gi jaaxle jàpp na ko ni ki xiifu metti ba tax mu jaay soxnaam jox ko ci njëkk wala soxnaam si ci boppam mu may ko keneen kooku jox ko ak can bu ko yoon yëgee ba di ko àtte da koy wax ne ko da ngaa mel ni ko ko fase menn pase moo xam ne ak fay li mënu cee topp lu yàgg-yàgg bu idda ji jeexoon nit bu amee déggoo rek nga takkaat ko waaye mën nga ne ku ko fase pase moo xam ne ak fayli du ca topp ba tey mu ne ñépp pase moo xam ne attakat bee ko def mbaa daa digle kenn def ko mu ne ko wéel naa pase mi bépp pase bu mel noonu dañ koy jàppe ne ak fayli du ca topp mu ne su ko fayli lu may nag yaar am na yaar yoo xam ne moom bu ko attakat bi defee itam du tee kooka sañ a fay li fekk idda jey jeex bu njëkk bi mooy li ñuy wax al ilaaw bu jëkkër ji waatee ne li fekk diir sàngam du ma fi jotee ak sama soxna te li wax ëpp day jamono bu dee gor gën ngaa bari ñeenti weer la bu dee jaam gën ngaa bari ñaari weer la léegi nag bu gor si waxoon ne waat naa ci yàlla ne sama soxna si diiru juróomi weer du ma fi joteeg moom bu amee yeenti weer rek attikat bi da koy taxawal ne ko yeenti weer yi mat na lii sañoo koo weesu ba nangoo dellu nag joteeg moom baax na boo nanguwul ma fase ko bu gàntoon nag ba mu fase ko la ne li fekk idda jay jeex rek jëkkër ja mën naa deltu gannaaw ci la mu waxoon del siwaat ci soxnaam bi topp mooy jëkkër ji amul ab dund ba àttekat bi fase soxnaam ndax da ko tëlee dundal li fekk idda ji jeex su amee ab dund mën a yoraat soxnaam rek daal koy sañ a fay li lu bokkut ak ñaari fase yooyu nag bu ko àttekat bi xasee def rek jeex na kenn du ko mën a fay li mu ne nag bu fekkoon ne jëkkër ji daa fase soxnaam ba noppi nag jox ko alal teg ca nga xam ne jëkkër ji moo fase moo joxe alal ci coobareem koy it du tee mu mën a fay li parce que ba noppi jox jigéen ji alal du tee nga mën a fay li jigéen ja peut-être du góor gi doon fase soxnaam soxna sa ne ko dañuy sart ne dooma fay li mbaa mbaa ndeyam mbaa baayam ne ko dañuy sart ne doo ko fay li ko itam bu fekkee joxuñu ko jenn alal du tee bu ko neexee fay li ko da nga weesu woon daa fase woon ñu waxtaan ak moom ba juboo ci jox ko nangam ci alal tem doogu ci ne bu ko fay li bii nag moom dañoo wax ak moom rek ne ko boo ko xasee bàyyi kat doo ko fayli kon bu ne waaw itam du tee mu sañ koo fayli xanaa ñu war a jàppale foofu ne fayli mooy rek jëlaat naa sama soxna soxna sa sañu ta bañ ay kilifaam sañu ñëw bañ waru caa joxewaat tam dara dara lum tuuti tuuti loolu nag mat naa xam bu baax a baax jàppal ne jigéen ji nga xam ne yaa ko yilif ka ko yoroon bu ko fasee ba mu ñëw ci yow te yoon ne sañ na koo fayli bu ñëwee ne jëlaat naa saa soxna rek loo mer mer mer ak lu soxna sa mer mer ba bu xasee wax ne saa soxna laay jël si rek dal nay jëlaat soxnaam ci yoon nga xam ne lu yàgg yàgg yàgg li feek bayiwu ko soxnaam la lu mu yàgg yàgg buñ ko mayee jëkkër jeneen soxna si jaambur la ñu mayee muy lu araam ci yoon kon nañu jàpp ne ku bàyyi soxnaam te matagul ñetti buum fay ñu ko alal li fekk idda jey jeex bu ñëwee ne sama soxna lay jël si yoon day jàpp ne jël na soxnaam ba àggal waru caa joxe dara soxna sëñ te gàntu day mag bàyyam mbaa kilifaam geneen kenn sëñ caa gàntu daal lu doon soxnaam ba noppi bu idda ji jeexee nag mu door a ñëw di wax moom moo ab jaambur ñëwoon bëgg koo takk ñooy moom dañuy waxtaan ba juboo mu joxe waat can gu yees ñu may ko ko may gu yees waaye lii nag moom amul mayewaat amul dara lu muy bàyyi ko soxnaam rek buñ deful noonu nag xanaa mere ko ba téye soxna su ba yàgg ñu may ko keneen soxna su jaambur rek la ñu maye muy lu araam araam loo xam ne mën na yooyu rek di yooyu day wax nag ki nga xam ne moo saña juróom jigéen ja mbaa ay mbokkam ci ñu fay ko alal te sëy bi dañ mu ne kooku nag mooy jëkkër ji ci bopp bu fekkee ne mu kàllaf la bu xëcc doon mu kàllaf moom nga xam ne du gone du ab dof doon ci sax bu yoree alal yàq ko mën naa wax ne nañ ma fay nangam ci alal te ma maye baat mooy sëy bi jeex bu dee nag gone mbaa ab dof moom kilifaam mooy seet ba xam lu gën ci moom mu defal ko ko bu fekkee ne mu summikoo ko maanaam ñu fay ko alal te sëy bi jeex moo gën ci gone gi mbaa dof bi mu defal ko ko bu fekkee loolu gënul ci moom it mu bàyyi Maalik nag ak Ibnul Qaasim mas nañ ci ne jëkkër jë doon gone mbaab dof kilifaam suñ te jekki-jekki rek daal di fase soxnaam soosee te laajalu ko alal xanaa boo yilifee gone mu am soxna mbaab dof mu am soxna bokk yu bëgg sëy ba deñ na nga laaj ñu fay ko alal waaye bul bàyyi rek noonu sëy ba deñ gone ga mbaa dof boobee ñàkk alalam Ibn Arafa nag moom ci lim toxale te mel ne ci lañ sukkandikoo mooy su fekkee ne dindi sëy ba moo gën ca gone ga mbaa dof boobee sëy boo ñu dindi ko rek koo xam ni moom magum jëmm la du gone du ab dof ñàkk ma yor àllam rek moo ko dal bu ko yoree baayam sëñ ti doogu ci moom ne ko damay dindi sëy bi te laajal la alal bu ci àndee rek baax na waaye bàyyi suñu ko force ci loolu ne ko damay dindi sëy bi te ñu fay la alal ba tey jamono yi jaam amee jaam balaa takk moom war na caa am ndigalul sang ba waaye nag jaam boo xam du gone magum jëmm la bu xësee takk ba noppi ab sangam mënu koo forcé ci tey nga tàggoog sa soxna si te ñu fay la alal fase ga moom ci loxoom lay nekk bu dee summi ko it ba bu dee laaj alal it coobareem lay doon waaye ab sangam mënu ko caa forcé góor bu tawatee tawat yoo xam ne ku masaa dal day faatu du sañee jekki-jekki wax ak soxnaam ne ko fal ma alal taa may la sa baat li ñu waxee woon ne ku tawat tawati faatu mënta takk ba tey dañ koy aaye fase te nag bu nee soxnaam fay ma alal taa may la sabaat loolu kon lañ ko aaye woon ma ngi koy def moo tax suñu të tëb tëb def ko lu araam la waaye nag bu ko defee itam ñu bàyyi ko mu wéy suñu ko kon am na mooy kon fase na soxnaam soosee fase goo xam ne ak fay li du ca topp ku taw tawati faatu bu ko soxnaam fayee alal mu may ko baat bu faatoo ca tawat joojee faawu soxna sa doon ko ak lu tawat ja yàgg-yàgg ba mu jot fa amaat ay jëkkër yu jëkkër te nag bu fekkoon ni soxna saa njëkk a faatu moom jëkkër joojee du ko doon xam nga li mu waxoon léegi mooy ku tawat tawati faatu wax soxna mu fay ko alal te may ko baatam mu ne nag saa yu góor tolloo ci tawat tawati faatu rek bu fasee soxnaam doonte sax fayu ko jenn alal da ko fase rek bu faatoo ci tawat joojee soxna soosee war koo doon mu ne nag doonte sax fase ga daa mel ni du coobareem ndax ci misaal da ko waxoon ni ko nangam boo ko defatee rek fase naa la nit ki mu ne ko waat naa ci yàlla ne boo duggatee kër diw fase nga fase naa la ba mu demee nag ba toll ci awati faatu soxna si dugg ca kër googee mu waxoon kon soxna si fase na ndax moo ajoon taseem ci dugg ca kër googee te lam ajoon ajjiku na mbaa boog soxnaam si nekkoon ci diine yahut mbaa diine nasaraan nga xam ne daawuñu doonante bu mu tolloo nag ci tawat tawati faatu mu fase soxnaam soosu soxna sa nag wëlbatiku tuub kon bu góor gi faatoo ca tawat jooje rek soxnaam si war koo doon ndax léegi sopp ku ne jullit ci jamono yi tawati jëkkëram jooju mbaa soxnaam nekkoon jaam nga xam ne jaam moom du donn deesu ko donn bi jëkkër ji tawatee tawati faatu nag fase ko mu ne bu goree moom jigéen jooju góor googee faatu ca tawat joojee rek mu daal di koy war a doon aw tasawajat xayrahoo doonte siwu naag keneen mooy ku tawat ki bu fasee soxnaam ci jamonoy tawat ja tawat ja mën naa yàgg lool ba jigéen ji iddaam jeex ba mu siyaat ak keneen mbaa ñeneen wa warisat doon na sax aswaajan ay jëkkër yi jëkkër mu ne mën naa am sax moom jigéen ji mu doon ay jëkkër yi jëkkër yoo xam ne kenn ku ci nekk te koo fase woon ci jamono yi tawat ndax léegi moom bu góoru fasee ci tawat lu yàgg-yàgg góoru ci tawat ja kam fase woon war koo doon rek da nga tekki ne bu jigéen ji faatoon nag moom du ko doon loolu mën naa tax kon jigéen doon ay jëkkër yi jëkkër mel ne mu séy kenn mu fase ko ci tawat bu dem iddawu ba idda bi jeex keneen takkaat ko fase ko ci tawat muy ñaar bu iddawu ba idda ji jeex keneen takkaat ko fase ko ci tawat muy ñett mu dem nag ba iddawu ba keneen takkaat ko muy jëkkër yi ñeenteel nag yetti jëkkër yi jiitu woon te fase woon jigéen ci tawat door a faatu koy butee yetti jëkkër yëpp yëpp lay doon mu ne daañu ci joxe aw cax woo xam ne wu siiw siiw la te dañ ko waxee mooy jigéen joo xam ne daa doon yetti jëkkër ci benn benn bis yaari jëkkër yi moom ci benn bis bokk nañ ci bëteeg moom nu muy amee ñu ne mooy jigéen am jëkkër ba jëkkër ja tolloo ci tawat daal di koy fase idda ja jeex keneen takkaat ko moom it ba mu jot a ëmb ca moom mu fase ko nag da fekk mu tawat tawati faatu moom jëkkër yi ñaareel ji bis bi ñu ko fasee jote na caag moom te xam nga ne jigéen jaa ngi ëmboon mu daal di faatu moom jëkkër yi ñaareel jooju jigéen ji am doom di daal di koy mayaat beneen jëkkër mu jëkkër yi ñetteel jëkkër yi ñetteel jooju itam jote naa moom waaye da daal di faatu ca bis boobee jëkkëram ji jëkk jaa jëkk nag moom door a faatu ci bis boobu nga xam ne kon yetti jëkkër yëpp ñu ngi faatoo ci benn bis bi te yaari jëkkër yi moom mujj ñaari yeeg ñetteel ji bokk nañ joteeg moom ci benn bis bi nga xam ne ca lañ faatoo loolu dañ koy wax rek ngir cax su amoon it nag ca dëgg-dëgg noonu la àtte bay demee mu ne bu góor demoon ba tawat tawati faatu wax ne sama soxna sii day fase woon naa ko ca bàyyi wér waaye nag amul ay seere moom moo wax rek ne bàyyi wér laa ko fase woon day mel ni kon ku fase ci tawat bis bi waxee ne rek fase woon naa ko te amul ay seere bis boobu la ñu jàpp ne ci la jigéen jee tàmbalee iddawu ñu jàpp ne it daa fase ci biir tawat nga xam ne bu faatoo ci tawat joojee faw rek jigéen jooju donn ko loolu nag mooy mu wax loolu ci amul ay seere waaye bu ne woon caram tawatee sama soxna si daaw laa ko fase woon mbaa weer sàngam taxawal ay seere yoo xam ne seere woon nañ boobu ne wax na dëgg boobu la fase woon kon dat ba seere ya wax te la ñuy tàmbalee idday jigéen ja bu ñu seetee dat boobaa léegi idda ji war a jeex kon jigéen ji du doon góor googu góor bu fasee soxnaam ci jamono yam tawatee lay tee soxna si doon ko daal mooy mu wér ci tawat jooju wér goo xam ne kenn nattabliwu ko dëgg la tawat jooju ku masaa dal daawa wér waaye moom yàlla def na mu wér ca ba kenn nattabliwu ko kon moom gannaaw boobu faatoo itam soxna sa fase woon ci jamono tawat du ko dondati jigéen bu tawatee tawati faatu day araam ci moom muy fay jëkkëram alal ngir jëkkëram bàyyi ko ndax kon mu ngay génne aji donn te dañuy aaye dugal aji donn mbaa génne aji donn jëkkëram it araam na muy ànd ak moom ci sumikoo ga ndax kon da koo dimbale ci lu araam loolee teewul nag bu sumikoo ga moom pase na dal na mooy fase na ko pase moo xam ne amul ak fay li waaw bëgg a wax ne bu jigéen joxee alal sumikoo jooju dañ ko fay teg rek bañ koo laal bàyyi ba bis moom faatoo bis moom faatoo ñu xool nag lam bàyyi ci alal bu jëkkër ji doon donn bu ab doonoom di toll ñu tolloo nag doon boobee ak li mu ko joxoon alal yu sumikoo ba xam dañuy ëppante mbaa dañuy yemoo bu fekkee ne alal yu summikoo ga daa yées ab doonoom bu doon doon mbaa mu yem ci képp kon na góor gi téye alal yu summikoo ga bu fekkee ne nag alal yu summikoo ga ci misaal day ñaar fukki junni ab doonoom war a na nekk fukk rek kon alal yu summikoo gi ëppee na fukki junni ab doonoom bu doon doon kon day téye fukki ya delloo fukki ya nag way doon ya nga jàppaale foofu ne bañ fabee alal yu summikoo ga teg ko fee di xaar bisu faatoom bu fekkoon ne jigéen ji daa far wér nga xam ne faatuwut kon alal summikoo ja moom la jëkkër jay moom te lépp lépp lay moom donte sax loola képp la fekkoon jigéen ji amoon ko ci alal it waaye xas na wér rek moom lépp la jëkkër jay moom muy alali summikoo muy alal ja ko jigéen ja fay bu nit jabaloon ndaw ne ko sama soxna nee ko na ma jox nangam daa may ko baatam nit mu ne ko juróom fukki junni kam yabal nag dem wax fanweeri junni bañ wax juróom fukk mu ne kon bu soxna si nangu wuta mottali ba juróom fukk kon jëkkër ji mën na ne mën laa waxoon rek buñ ma ko joxut du ma ko may baatam bu ne woon ndaw la muy yónni damaa bëgg a sumikoo sama soxna mu fay ma alal daa may ko baatam waaye néewu ko boo demee ne ko na ma jox nàngam daa jàpp ne rek ki ñu yebal moom xam na li xew te bu demee du laaj lu yées lañ daa fay ñu may la sa baat ba kooku demee nag wax lu yées loola mel ni ñeent fukki junni daal lay ëpp wax foofa ci ku bëgg ñu may ko baatam moom mu dem wax ñaar fukk kon dëkkër ji mën na ne baa ko yebal damaa jàpp ne xam na li xew du wax lu ko yées bi ma joxul rek liñ baaxoo joxe ci barab bi du ma ko may baatam in afraqa loxoo jooju mooy waxul ndaw la muy yebal benn lim aw laxaa nag mooy jigéen ji ci boppam la jëkkër ji waxal ne ko soo ma fayee alal dama may la sa baat agul ci ne ko nag boo ma joxee nangam waaye daa jàpp ni jigéen ji xam na la xew te la xew foofu moo ko tax di wax kon bu ko jigéen joxut lu mat lañ baaxoo fay foofa mën naa ne du ma ko may baatam de su ko joxee nag lu mat loola mu door koo may baatam bu fekkee jigéen ji moo yónni ndaw ne ko sama jëkkër nee ko dama ko bëgg a jox nangam te may ma sa baat ndaw li yebal nag moo wax lu ëpp li ko jigéen ji waxoon mu ne jigéen ji ne ko ne ko daa ko bëgg a jox ñeent fukki junni mu may ma saa baat ndaw li ñëw wax moom juróom-benn fukk mu ne kon ndaw li ci boppam moo war a mot li ba mat juróom-benn fukk ndax ne moo yokk lañ ko waxoon la ci yokk moo ko war a fay bu fekkoon ne sax jigéen ji ba muy yebal ndaw jotu ko tudd benn lim waaye daa jàpp ne ki mu yebal foofu la dëkk xam na li xew te bu demee du wax du wax lu ëpp loola dem nag wax lu ëpp loola kon it àtte bi benn la moom moom mu dox ci diggante bi muy ki yebal moo war a mot li la ca war ba mat fa alayhi siyaadatu jigéen bu faye alal jëkkëram ba may ko baat gannaaw ba bu taxawalee ay seere yu seere ne moom kat du woon bëggoon a génn ci sëy bi ci coobareem moo ko tax a fay alal ni ko jëkkëram doon def di ko tooñ te mënu ci dara moo tax mëntoon a ñàkk fay alal ñu may ko baatam loolu bu ci taxawalee ay seere rek yoo ko seere doon ci sax seere ya teguñu bët ca lor ja waaye dañ ne dëgg lañ ko ba tàyyi ñun daal dëgg lañ ba tàyyi ne diw mii jëkkëram da koy def nangam ak nangam ak nangam lu jaaduwut kon yoon daal di delloo soxna sa alal jëm fayoon ba tey bu fekkoon ne gannaaw mu fay alal taxawal na benn seere bu góor mbaa ñaari seere yu jigéen te mën a waat boole ca ne jëkkëram moo ko doon lor rek moo tax mu fay alal ji moom boppam kon moom na boppam te dañ koy delloo alal jëm fayoon doonte sax laata ko jëkkëram di may baat dañu ko woon kat du ma la may baat ba noppi ngay taxawal ay seere naa maa la doon def nangam ak nangam ba ñu nanguwaat alal ji ma fayoon ba dogoo ci ne daal lu yàgg-yàgg doo fi taxawal ay seere ba nangulaat may sa baat mu ne bu jigéen jee da ko woon waaw du ma taxawal ay seere itam du tee rek gannaaw ba moom bu taxawalee benn seere bu góor ba ñaari seere yu jigéen te waat boole ci rek ñu war koo dellu alalam te moom na baatam mooy moom na boppam ba tey bu fekkoon ne jigéen ji fay na alal jëkkëram ngir may ko baatam waaye bu ko yoon seetee ba mu koy fay alal fekkutoon mu nekk ci buumug sëy ndax fekkoon na ci yoon moom ñu tàggoo tàggoo koo xam ne ak fay li mënu caa am kon alal jam fayoon dañ koy delloo ndax day mel ni kon daa fay alal te fekk buumug sëy nekku fa buñ koy laaji alal bu fekkoon ne nag yoon seet na ko ba mu fay alal ji fase woon nañ ko waaye pasem pasem pay li la woon pasem pay li moom jigéen ji mook soxnaayam ba tey maanaam aatib soxna lay amee kon jigéen bu ñu ko fase woon parce que moo xam nangu na fay li mu fay alal ndax jëkkëram bàyyi ko du ko jëkkër ji bàyyee ca loola te mu ne ku ko fasewaat meneen parce que moo xam ne fay li mënu caa topp waaye nag du sañ a nanguwaat alal joojee ndax alal ji mu fay moo tax jëkkër ji amatul sañ-sañu fay li ko da ko boole ci masala yi nga xam ne jigéen ja moom na baatam maanaam moom na boppam te alal jam fayoon dañ ko koy delloo mooy bu jëkkër ji waxoon soxnaam ne ko boo ma joxee ab junni ma sunu ko loo day fase nga ñetti fase ci wax ibnul xaasim moom day jàpp ne jigéen ji daal nay fase ñetti pase ndax moom ci lim jàppee sart bi muy in xaala tukki moo fa an ci taalikum talaasan muy tontu bi dañuy bokk yenn jamono daanu mooy jenn jamono duñ bokk xewee su ma suñu ko yow ci ab junni fase nga ñetti fase day jàpp ne moom suñu ko gi ak amu ñetti fase gi ñooy bokk jenn jamono ju ñu amee te ci loolu mu waxee moom bu ñetti fase ñi amee ba noppi bu mu séega jeex na amatut fu mën a joxee alal waaye loolu nag wuute naag li achab wax te li achab wax moom bu dee ci ni nga déggee baat yi moom mooy gën a yàlla achab day wax ne moom bu nekk bu ma summi koog yow fase nga ñetti fase bu summi koog moom rek menn pase mu yër moo xam ne amul fay li daal di am ndax loolu summi koo di waral su boobaa mënta ma ñett ndax dina ko bu summi koog yow bu summi koog moom rek benn pase moo xam ne amul fay li daal di am te su boobaa kon pase ñaareel ma ñetteel ma duñ am fu ñu daanu kon jëkkër ji alal ja mu wax jigéen ji war na ko koo fay mu mel ne rek suñu ko naag moom fase ko menn pase dong dong moo xam ne amut fay li boo ko seetloo waxi achab ji moo gën a yanu maanaa waaye teewul nag waxi ibnu xaasim ji moom la ñuy sukkandikoo moo tax kii taalif andil la waxi ibnu xaasim ji bu fekkee dañoo aadoo kuy suñu ko jëkkëram day jekki-jekki rek jox ko la ñuy joxe mu nangu te duñu waxante benn baat bu ko joxee mu nangu rek ñu jàpp ne suñu ko gi am na mu ne kon ñu jëfe loolu ndax loolay aada foofu kon loola doy na ni ki am na xeeti lan wurus yoo xam ne ku bëgg a suñu ko jëkkëram da ko yëkkati rek teg ci loxol jëkkëram lépp daal di jeex te que loolay aada foofu kon bu ko jigéen ji defee rek ñu jàpp ne jëkkëram suñu ko nang moom may na ko baatam su ne ko soo ma joxee nangam baa téye ko day may naa la sa baat ndax kon fay nga ma alal mu ne bu fekkee ne ñëw ko ci jataay bii nu toog noonu la ko waxee ne ko boo ma joxee nangam daal ba téye ko may naa la sa baat dañuy jàpp ne kon mu jox ko ko foofee ñu toog ah mu jox ko ci ëllëg sa mbaa ci gannaaw ëllëg sa ñoo yemoo rek saa yu ko joxee loolu rek daal na koy may baatam summi ko nañu bu amee nag firnde ji wane ne barab boobu moo ko tax di wax mooy foofee ñu toog moo ko tax di wax ñu àtte kon ca noona bu ne ko boo ma joxee junniy dërëm mbaa junniy gàtt ma may la sa baat da fekk nag ay dërëmi dërëm ñoo am ca barab booba rek benn xeetu dërëm bu fa nekk waaye ay xeeti dërëm yi dërëm ñoo fa am kon dañuy seet buñ ma saa wax junni dërëm lañ ci ëpp juru rek ñu àtte ca loola bu fekkee dana kon ba ma joxee junni gàtt ba may la sabaat te xam nga ne gàtt ma buñ ko waxee dina yóbbaale xar ak bëy ñu seet rek buñ ma saa wax junni gàtt foofa luñ ci ëpp jublu ñu àtte ca loola su fekkee amu fa luñ ëpp jublu yëpp a fa yemoo ne kii bu dee gàtt ñu wax ko jublu ca xar wax ak wax ko jublu ci bëy ñoo yemoo rek kon da koy jox genn wàll ga ci junni bi muy xar genn wàll ga di bëy ñu ko la jëkkëram nëpp ci ne ko yére bi nga xam ne yére dëkku xaraata la boo ma ko joxee day ma may la sabaat ñu leen ko nag mbalaan ma ndeke liggéey wuñ ko xaraata ñu ko liggéeyee ca marwa mu ne du ca dara du tee rek summi koo ga am na ndax jëkkër ji moom jëmmi mbalaan nam mel moo ko neex tudd gam ca tudd nag ne ña ngi ko ràbbee barab sàngam ndeke bu foofa du ci wàññi dara moog bu nekkoon jox ma oto bii nga xam ne ñu ngi ko defare Amérique ma may la sabaat waaye gis na oto ba jëmmi oto ba na mel neex ko doy ko dañ ko toppatoo ndekkee kat bàyyi ko Amérique mu nga bàyyi ko Italie koy du rek summi koo nga am na lu jëkk a jël rek oto booba sëy bi jeex ndax moom daa xool jël oto ba ba mu doy ko ak summi koo kon nag mu dëkkale oto ba fu mu dëkkut di yàq dara ci summi koo ga bu jëkkër ji ne woon soxnaam li nga yor ci sa loxo jox ma ko may la sa baat ndekete la jigéen ji yor du alal du alal mel ne suuf rek la yoroon ci loxoom moom jigéen ja mbaa sa loxoom dara nekku ca woon mu ne ko nag jox ma li nga yor te mu may la sa baat koy day jàpp ne jigéen ji may nañ ko baatam ba noppi la mu yoroon ñàkk a doon lu xeetoog alal mbaa loxoom dara bañ caa nekk day jàpp ne buur gi moo sañee maye baat maye na baat rek daa topp nag rek la borom Muxtasar waxoon te topp ca Ibn Abdi Salaam am na woon xal ahsan la waxoon foofa waaye àll xam yi moom dane laa yalzamuhu talaaq lu mel ni nga xam ne jigéen joxu ko dara ci alal te xëy na moom daa jàppoon ne li mu war ci loxoom nangam la ci alal du tax jëkkër ji ñu ne ko fase nga du tax ñu ne jigéen ji yaa moom sa bopp mooy nag bu jigéen ji fayoon jëkkëram alal joo xam ne moom jigéen ji wóor na ko ne moom sañu koo fayee kenn ndax lu ñu sàcc dong la mbaa lu nangoo ci ab jàmbur dong la jëpp alal joo xam ne wóor na soxna si ne moom sañu koo jox kenn bu ne jëkkëram naa la ko fayee nga may ma saa baat jëkkër ji xamu ci dara daal di nangu it du tax jëkkër ja dara war ko ca duñ ko wax ne ko may nga sa baat waaye nag dane bi mu xëyanin alal ji ràññiku ni ki xar mi mbaa naw yi muy lu ràññiku bu fekkoon du woon jëmm ji ràññiku moom mu tey ko moom jigéen ji fayoo ko jëkkëram ngir may ko baatam ndegam nekkul lu ñu ràññeel rek dañuy wax ne kon jëkkëram may na ko baatam waaye nay seet lu mel ne lu mu ko doon jox te sañu ko koo jox nay seet lu tolloog moom lu mel ne moom mu jox ko ko muy alal sunikoo ga su jëkkër ji ne soxna si jox ma alal ma sunikoo yow soxna si jox ko loo xam ne matut li ay moromam di joxe bañ may leen baat kon bu neexee jëkkër ji mu nangu ko neexee bañ a nangu ne ko waaye wax itam kat da ngay jox lu toll ne di say morom du joxe buñ bëggee ku leen may baat bu jëkkër jabar ji xëccoo ci jabar ji ne ko dangaa jekki-jekki may ma saa baat waaye laajoo ma jenn alal mu ne ko dama laa wax ne la boo ma joxee nangam ci alal ma may la sa baat ñu xëccoo ci loolu kon bu soxna si mënewaat loolu ñu ne ko wax nga dëgg jàpp ne kon da koo may baatam rek waaye waru koo fay jenn alal bu ne ko nag daane woon nga jox ma ñaar fukki junni ma may la sa baat mu ne ko fukk nga ma waxoon kon tolluwaay alal ji ci lañ xëccoo ba tey bu jigéen ji ma neewaat li fukk lañ waxoon rek ñu ne ko joxel fukk rek te dal ngay moom sa bopp bu ñu xëccoo ci xeet wa itam kee wax xeetulee kee wax xeetulee mel ne jigéen ji ne jëkkëram ne ko waxoon ne ko jox ma nawee kaa may la sa baat jëkkëram ne ko damaa waxoon ne jox ma sa place ba ca marché ba ma may la sa baat kon xeetu alal ja ca lañ jiwoo ba tey bu soxna si waatee la mu wax rek ñu ne ko yaa wax dëgg yett yi nga wax yëpp buñ ci xëccoo da nga ne woon bu jigéen ji ñemee waat la mu wax rek ñu ne ko yaa am dëgg mu ne nag bu ragalee waat na jëkkër ja waat dañ jox ko dëgg ga dañ ne jigéen ji waatal li nga wax mu ragale waat ñu ne kon jëkkër ji waatal ñu wax ni yaa moom dëgg far jëkkër ji itam ragale waat nga xam ne kon ñoo bokk ñoom ñaan ñëpp kenn ni mu wuccee waat la mu wax ba tey kon dañuy dellu ci waxi jigéen ja ne jigéen ji yaa am dëgg fu ñu fi waxee ne jigéen ji moo am dëgg nag ci yetti wax yooyu jàppal ne kon xëccoo bu njëkk ba moo doon da ngaa jekki-jekki may ma saa baat mu ne ko déedi daane woon jox ma nangam ma door laa may sa baat ñu ne jigéen jaa moom dëgg ga kon mooy may nañ ko rek baatam noonu te amul jenn alal ji muy joxe yaari ca toppoon mooy ñu xëccoo ci tolluwaayu alal ba mbaa ci xeetu alal ja bi ne jigéen jee moom dëgg gi lim ba ñu waxoon ci tolluwaayu alal ja loolu lay fay xeetu waxoon ba tey ci xeetu alal lam ci waxoon rek loolu lay fay bi ne nag jëkkër ji moo moom dëgg gi ndax soxna si ragal naa waat kon ba ñuy xëccoo ci wax bu jëkk ba te mooy mu ne ko da nga may jox nangam ma door la may sa baat laa wax mu ne ko dangaa jekki-jekki may ma baat kon bi ne jëkkër ji moo moom dëgg gi faaw soxna si jox ko alal mu door koo may baat bu dee ba ñuy xëccoo ci tolluwaay alal ba mbaa xeet wa itam noonu la tolluwaay ba jëkkër ji waxoon mbaa xeet wa waxoon rek ca lañ koy fekk si bu jëkkër ji ak jabar ji bokkee ay wax ci ne jëkkëram ji fase na ko waaye nag li mu fase ba ca lañu wóotee jëkkër ji wax ne man benn fase dong laa ko fase soxna si wax ne ñaar la ma fase mbaa ñett kon jëkkër ji bu wanee waat rek ñu ne ko yaa am dëgg ni ki bu waatee ne benn fase laa ko fase ñu ne ko kon mën nga koo fay li ne nga faylu alal bu idée ji jeexe it mën nga koo dellu takkaat bu ko takkaatoon gannaaw idée ji jeex it day jàpp ne benn la ko fase woon ba tey kon buumu séegi des na ñaari fase jamono yi jaam xëyee mbaa sax kenn alal joo xam ne rek lu ñuy moom la te mu amaguroo bu ko jigéen ji summikoon teeg jëkkëram waaye nag daa fekk jëmm ja boobu nekku fi woon bu yëgee nag ne loolee kat dee na jëkkër ji ne ba ma ko jox de ngir ma may la sa baat fekkoon na ko dee kon day mel ne joxu góoma woon dara soxna si ne ko daa la ko jox ba nga moom ko nga door maa may sama baat mu door a dee nag nga xam ne kon ci sag moomeel la dee waaye déewul ci sama moomeel mbaa loolu am sikk la nga ko joxoon muy àlli summi ko dafa am sikk jëkkër ji ne ba ci sikk si nekk booba moom guma ko soxna si ne ko gannaaw bi ma la ko joxee ba nga moom ko nga may ma saabaat li ci sikk si door a am loolu lépp waxi góor gi muy jëkkër ji moom la ñuy jàpp bu dee jëmm ji dee ñu jàpp ne soxna si ba lay joxugu ko àlali summi ko bu dee jëmm ji sikk itam jàpp ne soxna si moom alal ji sikk te war naa juli këram lu sikkut su wóoroon nag ne jëmm ji gannaaw bay summi ko ba noppi la door a dee nga xam ne kon ci moomeelu jëkkër ji la dee kon jëkkër ji moo ñàkk dañ ko fay ba noppi lañ ko fay woon wala bëtiku dee kon yëfama dee bu dee sikk itam noonu saxee ci seere ne gannaaw bi ñu ko joxee jëkkër ji ba moom ko ba maye baat la door sikk it ba tey kon alalam moo sikk waaye buñ ci amut lu leere noonu dañuy jàpp ne la dee jigéen ji la dee xal muy alalam ma dee bu dee sikk it lu sikk alalam la